parce que boo waxee yow yaa war a wax. waaw milieu bi. waaw. Mm-hmm. ndax xam nga lu tax du ma ne wax ñoom nañ ko bàyyi. Mm-hmm. kenn ku nekk li nga yëg yaa ko xam. Mm-hmm. li lay coxutaan. nga koy yëg. yow loolu yaa xam loolu. calculer naa sa doom du dugg si mel. si bari paraayu la. waaw xale yi ñu ngi jànkuwanteeg lu ne si game bi. waaw soo fa taxawee. waaw di leen xool nga ne sa oto taxaw di leen xool. waaw da ngay dem ba da nga naan man su ma yëgoon tey du ma jur jigéen. metti gu mu metti. dëgg la leen di sonal si kaw tali bi. jàppale xale yi nga xam ne ñoo nekk si milieu bi bu ñu leen si mënee génne ñu génne leen si. andil ko ay problème. waaw nangu li mu bàyyi ko mu dem.